waaw kooku est-ce que waxam war naa ci dóor suma doom la réponse est non am sorry Maître El Hadj Diouf ma ci attardé wu dafa ma wax ba tàyyi mu dañ dafa def tuuru plateau yi wax ma ci Sweet Beauté booboo gënoon garaaw hmm. te bu daan wax dafay mel ni kuy wax ak àqulaay taalaam waaye kooku man dana ma wax waxate leneen ma gëm ko xanaa ma naïf nag quand même El Hadj Diouf a toog ci plateau wax kàddu yoo xam ma ni ma ci revenir sax ci Sweet Beauté mais kooku yaa xëy. nga ni daal la mu wax euh, waxi avocat la. jàpp ma ko moo am. <laughs> ma jàpp de moo am mais man cest à man euh, assurance bi nga am. Euh, euh, ci lan <laughs> assurance bi ngay waxee nii. waaw mu ma xaw a jaaxal quoi. maanaam ci assurance comme quoi. bi ngay waxee que ni Bah Diakhaté dafay maanaam du ñibbi. <laughs> du ñibbi comme ni ko comme ni ko. mais yéen je ma jaaxal non yéen je vous comprends plus comme si euh, je sais pas quoi mënu ma ko sax expliquer mais. da ngay waxee ak assurance comme si Bah Diakhaté yow àtte nga ko ba pare ba ba ba ba tëj ko. waa xam nga lu tax. waaw ba daa yëkkate kàddu tuuma. waaw lu dëgg. waaw jàpp na ko kàddu yi yaa ko wax. Hmm. ba taxaw tey dëggalaat ay waxam. ñoo ko ñoo ko suivre ndoo man ak yow wiiw noo ay avocat am wax ko ay soutien am wax hmm. ne il s'est pas dédié am na wala amul. si waaw si Ba ne s'est pas dédié ba sera condamné ndax procureur kàddu yi attention procureur kàddu yi la ko jàppee. Hmm. xam nga bu fekkoon ba dafa jéggulu wala dafa wax ne dañ ma induire en erreur. wala li ma wax ak li ngeen interprété bokkul mën nga ne appréciation di juge mën na demee nii wala na la mais ba moo ne maa wax. mais la mu waxoon ba xaaral rek. dindiw ma ci yootaa. ba la mu wax a tax procureur jàpp ko xaaral xam nga dama bëgg mu leer. Mhm. kenn plaintul ba jaxate. waaw procureur mu autosaisir. procureur autosaisir dafa am lu mu dégg. Mhm. la mu dégg moom la ba dëggal ni moo ko wax. à partir de ce moment ba sera sanctionné. lii kesal lii rek a indi lii rek a indi sama xel mu dal dafa am dafa am ci xam nga. il faut ñëw ci détails yi nag parce que mhm. dafa am vidéo yoo xam ne si nii 2023 la mhm. moom wax na ko sax ci devant euh, la barre nee na am na loolu àll bi de ah mais de mais su fekkee Ousmane Sonko 2023 dafa am loo xam ne si nii tamit amnistie bi daf ko yóbbaale euh, te ses avocats wax nañu ko Ousmane Sonko waaye procureur bi mu ko jàppee génneel na ko vidéo deux ans ci ginnaaw waaw mhm. ah, mais amnistie boobu amnistie amul woon waaw léegi si am na waaw léegi nag xam nga lu dugal ñoom ba vidéo bi dañ cee tudd Ousmane Sonko premier ministre mais bu amnistie amee tamit. vidéo amnistie bi Ousmane Sonko premier ministre bokk ci vidéo bi dafa am bu yàgg am bu bees. bu bees bi mooy affaire ñaari tur yi. ñaari tur te loolu sax li mu wax li mu expliqué ci baar bi. waaw léegi ba boobu ko jàppee. waaw xaaral li mu wax ci baar bi li mu wax mooy que ni moom waxul ne Ousmane Sonko borom ñaari tur la. mais dañu en tout cas ñoom. non vidéo boobu waxul loolu. li ñuy non non li mu wax ci baar bi laay wax. non ah, léegi nag moom li mu wax ci bi. la mu wax la mu wax devant le juge. la la li mu wax ci baar bi ak ñun li mu dégg ak li juge bi dégg. waaw te ñu tegal ko ko. Mm-hmm. loolu leer loolu ñun ñëpp dégg nañ ko bokkut teg li mu wax ci baar bi. li mu wax dafa leer nañ. waaw li mu wax mooy que procureur mooy que ni waxul ne Ousmane Sonko borom ñaari tur yi la waaye. Ah. li ñuy jëflante ak borom. ñaari tur yi yow déglu nga waxuma li mu wax ci vidéo bi na li mu wax ci baar bi laay. li li xew tey laa lay wax léegi nag dama lay wax ne la baar bi duñ ci sukkandiku ndax baar bi taxul ñu jàpp ko. baar bi dafa ñëw pour lay. li tax ah. ñu jàpp ko moom noonu la ko layee la maanaam. waaw léegi nag lay bi taxul ñu jàpp ko la tax ñu jàpp ko mooy la mu wax cooju la mu wax ca. ca audio bay waaye expliqué na ko. Ah, déedéet loolu mënoo ko expliqué. bu doon loolu kay duñ ko yóbbu ca baar ba tamit. yow mën ngaa wax ba nit ñi dégg nga bëgg ko expliqué. li ko wax ba wolof la bu nee la li nga wax loo ci jublu. nga ah, ah, expliqué non amul jublu olof kenn dafa leer ba olof la wax noonu. waaw liñ liñ dégg dégg nañ ko ñun ñëpp kenn du ko firil procureur ak juge léegi nag tey li mu doon def muy layal boppam ca baar ba loolu droit am la rek. mais procureur taxawul ci foofu de. Hmm. pour charger procureur mi ngi taxaw ca la mu ci audio bi juge bi foofu lay taxaw pour condamner sëriñ bi dans un neta de droit. Hmm. où le droit est dit Bah na ne peut pas sortir de ce procès libre mënul ne à moins que sabotage nekk ci ginnaaw. sabotage waaw. Ah mën nañu am kon. Euh, le contraire de li nga doon wax léegi. amoon na nekk mooy que ni ñu jékki-jékki parce que benn instant. parce que man li ma lay wax ne ba ko xel xam nga benn instant nguur gi. benn instant joxe nañ ah, benn fausse alerte. nguur gi xam nga benn instant joxe nañ benn fausse alerte. ci ci ci ci ci euh, ci procès bi ñu ne euh, Bah Diakhaté ak Imam Ndao libre libéré na leen. libre de toute. ah poursuite. xam nga li fi nekkoon. xam nga loolu xam nga li fi nekkoon di jalgati réew mi. waaw moo fi nekk ba tey. Mhm. ci fépp moo tax man je le dis et je mhm. jub ñu ñëw au pouvoir jub nañ. Mhm. bëgg nañ jubanti réew mi jub jubal jub nañ ñi ngi jubal. waaye jubanti gi yéex na. ñi yàqoon réew mi. ñi àndoon nag parti politique bi fi nekkoon yàq réew mi. ñoo nekk ba tey ci administration bi. yéen teg ci yenn poste stratégique yi di doxal munoo defar réew mi ak ñi ko yàqoon mbir du defaru mukk ci loxo ñim yàqoo ci secteur yëpp nag sans exception secteur yëpp ñi yàq réew mi ñoo fa ne ba tey te buñ soree ba tey danaa la wan ne la ñi yàq réew mi ñoo fi nekk nañ avancé ci beneen sujet danaa la ko démontrer waaw danaa la démontrer ni yëf yi à ce rythme du gaaw de. du yomb de nañ dem. parce que tamit euh, xam naa ni moom euh, euh, pour daanaka fa di yàqoo pour nga changer ña fa nekk. Euh, dana jëlub diir. maanaam temps moo ça dépend rek. waaw mën nga ko def mode fast track Macky defoon na ko mode fast track bu ñu développé dinaa la ko woon jàllal ci beneen. d'accord ñu dem ci euh, li nga xamante ni moom moo di euh, dialogue bi war a am suba ci talaata ji le 28 fële jam Diamniadio CICAD centre international de conférence du Diouf ñu fas yéene def ab lël ndëpp jëme ko ci justice. maanaam moderniser justice bi waaye tamit indi ci ay ay réformes gis nañu euh, coow li nga xamante ni déjà jot na ko am bi moo amee benn fuite ci liste ci les des participants euh, ministre bi sax génn na indi ci ay leeral que nii euh, loolu nekkul ñi nga xamante ni dëgg-dëgg ñoo war a participer mais benn base de données la boo xam ne si nii dañu ko amoon pour mënoon ci liggéey pour fexe ba nga xamante ni dinañu mën a maanaam organiser bu baax a baax ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo war a teewee ci ndaje boobu déjà ñoo jàngatee tey. ces assises là de la justice ndax jàpp nga ne eh, tey justice man na fa jaare eh, daal di eh, baax ba faw fii ci Sénégal. assises yi moom bëriwuma ci yaakaar. Hmm. assises yi ah. Hmm. ci yaakaar. déet waay si Ousmane ah, xam nga li tax oui. xam nga tubaab dafay wax ni euh, ce que l'on conçoit bien. s'annonce clairement. s'annonce clairement. Et les pour les dire arrivent aisément. arrivent aisément. Mhm. yow yaa wax léegi mbirum fuite ci base de données bi. oui y a trop de cafouillage ci organisation bi. et loolu ah, dafay wane ni man li tax bëriwuma ci yaakaar. Mhm. booy waxtaanee justice ci réew mi da indi victime justice yi. da ngay indi ñi subir injustice ñooñu dafa am ay figure emblématique ñoo xam bu ñu taxawee waxal nañ ñëpp. Mhm. Ami Dia ci la bokk. dund na injustice. merci Fleur ci la bokk. dund na injustice Pape Ablaye Touré ci la bokk. dund na injustice. le président de la République jalul may wax ak ñeneen ak ñeneen mais Clédor Sène daf ko symboliser. Mhm. daf ci dund lu ko ñu bari dundut. mais daf ko passé am dafa rattrapé. kon xaaral rek voilà. dañ ko jàpp accuser ko assassinat d'un juge. Mhm. les faits n'ont jamais été attestés que moom la. Mhm. ñu libere ko. loolu moo topp tey Clédor ci dundam. amul ku gën a symbolique Clédor Sène ngir wax les victimes de l'injustice dans pays. Mhm. ndax mu ngi nii présence am ci assis yi lim dund ci injustice a ko xoo bëgg a aaya nag cafouillage bi am ci wàllum liste yi ah yow nan ngay invité ay nit nit nekk ca xaj ab masalimatu kasab koo xam ne du wax dëgg xam nga masalimatu kasab rafetal ko dafa lan xam nga masalimatu kasab bu xam nga ko xam naa ko waa ji nekkoon jamono yonent bi nga xam ne lu mu wax mu jig yàlla nattu ko bu gisee micro sax na micro bi dafa ñuul balaa nit ñi di ko xool yàlla soppi micro bi mm-hmm. waajooj noonu la mel du wax dëgg mukk mm-hmm. naan clé d'or naan un waa un assassin. Mhm. maanaam reykatu juge. Mhm. d' ailleurs man j'invite Clédor Sène mu porté ko plainte ndax ndax. moom daf ko vous parlez du du du poste. xaaral ma ñëw rek de Madiambal xaaral ma ñëw yaa ko tudd. oui def poste. na reykatu juge. nan ngeen ko mën a invité ci lël boobu déjà mhm. moom dafay incriminer Clédor j' espère Clédor dina ko porté plainte. tax nga modifier sa liste après génn naan loolu fuite la sabotage laa ko jàppee gis nga sabotage bi ma la doon wax léegi mooy ñëwaat. kan nga saboté pour bi fi nekk. oui. yenn figure yi nekk ci yenn place yi. man dama gëm ni dañuy saboter action yu pouvoir en place bi di teg parce que maa ngi am beaucoup de retours sur beaucoup de choses yu ma mënagul wax. moo tax ma gëm ni. ñi ñëw moo tax ma gëm ni ñi ñëw jub nañ. ñi ngi jubal waaye jubbanti bi à ce rythme là mille soixante cinq du tax ñu pare. parce que ñi yàq réew mi ñoo ñoo continuer ba tey nekk ci poste stratégique yi bëgg doxal réew mi loolu mënul nekk. mbir du defaroo ci loxo ñim yàqu. mais est-ce que bi pouvoir bi toogee ba tey. oui souvent day organiser dara mu am problème alors que ba muy nekk ci opposition bi loolu musu ko dal bi Pastef di organiser bopp musta organiser mu échec. Hmm. mais bi mu ñëwee administration di ko organiser la y a beaucoup de manquements moo tax ma gëm ne du Pastef c'est l'administration bale bi foog mu gaaw buñ bëggee.